aisha mama ñu ngi lay nuyu. wa ma ngi leen di fay. maa ngi nga présenter wu yaay kan. waaw man may jor mbabba sambu di yaay ci ayda sambu waye it muy sama rak ñu bokk bay a ayda nag tay mu am bes wax way bokkam wo ma ci ak man ma dal di ñew fekk ci ko waaw. Aïcha tay bo ñu doon wax yaay kan moy ayda lo ñuy wax. Wow, Aida su ngeen kan moy Aida Aida doomi gawlu la alaaji Samba Jabare jur baayam euh, jur yaayam Fat Mansour mi ko jur Aida alaaji Samba Jabare ko jur alaaji Samba Jabare na di doomi gawlu ndax Salli sambe ko jur di doomi gawlu Salli mi ko jur Samba Mbayo ba Gambe ko jur Samba mbaayo Siré Kumba Lawbe ko jur Siré Kumba Lawbe ak Buubu Kumba Lawbe ak Absa Kumba Lawbe Siré Kumba Lawbe at kure jey lay di ngalanka amaat mawlo sumaan suko paate Samba ganju leen digi Samba ak Demba Samba ak Faañoore Samba ak Belal Samba tukulóor ba kooku mooy kër Ayda ci kër baayam ndax Alaaji Samba Jabere mi jur yaayam mook Ousmane mi ko jur seen ñaari baay bokk ndey baay Ousmane Baye Samba Diabéré góor saane ko jur góor saane ak salli mi jur Samba Diabéré bokk ndey ak baay ma njaay tubaarkalla yaayam ak ay dañu bokk baay waaye yaayam nag dëkk mbuubeen kër Ali may sa ndax ayda mbuub mi nu dippee ayda mi Ibra Fatima ko jur Ibra Fatim Amadou Ndéla Amadou Ndéla gaynde ko paate Sidi Binta Balab Dorobe Ali Maysa ma xureeje ko Fatima nay ba borom jaam ñi waaye Ali Maysa al Njaay al ndiku tabakali biram jaaje gan mi Dorobe kon kooku mooy Aida waaye it maamam Maayata Jaara papaam mi jur góor saani mi jur baayam uh-huh. jaara daara mbaar ko jur jaara daara ak abdoulaye daara ak maajoor daara ak mataar daara mbaar ma jëma ci loola gege noo baana taa ay ca nga xamante ne mooy dalinkoor lan mooy dalinkoor waaw dalinkoor mooy jéeg bu sëy te yàlla tax danañ ko tuddee jéeg bu sëy te yàlla tax waaye nit ku baax ku ne te risqué dalinkoor nga man na tubaarkàlla bima ma dalin ko ay da way ko sama xel dem na ci ñu bari waye sama xel it jàpp na ah Kaywilaan jaay mu wala jaali Nguy mu ibrahim jaati mu Leyti Tam ta ci buri jele nak Lat Samba ndax gi la Kaywilaan mi tok day day ko dafa sëy te yàlla tax man lu bax bëgg kayam fonk borom kërëm ak bokkam kooku dal moy Aida Samb do nit ku bax nak xale bu bëgg ay mbokam bu safo ay mbokam bu bolé ay mbokam ci boppam bëggit nak njabotum ndayam giñ fi bayyi ndax chama nge tok di ndayam xale yaangi ñom ndey biti sagar fal tubarkal gune yépp nga fi machallah allah Aida koku dal moy ndax ayda dal, li ñuy bëgg dal ci nit ku baax mi ngi ci ayda ndax li yombul kin fa place sal bu day ni taabal jo gis un million la jar mu fess del ba nit ñi di taxaw ci biir sal bi ñi ci dess na ci biti koku ku andut ak say bokk doko man kon koku moy ayda sam al njaay ba digi mi ci mbam bi yal na yegg ni yoon sama dom ma ngi len di fay ma njaay sambu la waaw di rek ci papa yi Aïda Samb ñu bokk ndey ak baay maa moom. donc yow papa nga ci Aïda Samb. waaw papam la maamam la waaw. loolu ci papa bañ doon wax tey Aïda ban façon doom la lan ngay wax ñu lay seetaan. gannaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di am mbégte ci micro bi nga talal di ñu laaj ci Aïda muy doom joo xam jiw doom ju neex doom la. ndax euh, doom boo ko juree fa nga ko war a juree yàlla dogal mu am lum nàmp muy way judd ci way namp ci way yàlla xiir ko ci sa maam mooy sàmba jibare rek doy na sëkk ci ndaanaan yàlla dogal it ba mu jógee Mbàkke ba nëgën sii ñëw ci Ndakaaru fii mosuñoo dégg ci moom lenn loo xam ne lii luñ ko yeddeel lu may doon royukaay ci maamam na maamam meloon daal fam tegoon tànkam tegiwu fa tànkam moom jàngal na ko jom ngor ak fulla ak fayda ba yàlla def mu agsi fii mu agsi tey jii ñu di ko ñaanal rek ñun daanaka duñu gërëm doom sax waaye dañ koy ñaanal di ñaan fii bu teg tànkam yàlla bu mu ko fi teggi te yàlla miy jàppale yàlla na ko yàlla jàppale ba lépp lu muy yot yàlla na ci jot ci barki Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam ñu lay xamal daal sama doom ne kontaan nañ ci moom bég nañ ci moom te ñoo ngi koy ñaanal fépp fu bëgg àgg yàlla na ko fa yàlla àggale ci barki Seydina Mohamed sallallahu taala alayhi wa sallam kontaan nañ ci moom lool nag wax dëgg yàlla ah, doom la jàll ju neex a doomoo waaw ndax gisuñu ci moom benn défaut te lu mu amit mi ngi koy bokk ay bokkam waaw amul lenn loo xam ne lii mi ngi koy am di ko lekk bàyyi ay bokkam lu am bokkam la ko mbokkam bokkam li ci njëkk a defal bañ na ko ba lim njëkk am baayam ak ndeyam la ko defal ba génn àddina man mii topp ci baayam tey jii lépp lu mu daan defal baayam mi ngi ma koy defal kon da koy ñaanal rek yàlla na ko yàlla may fanu gudd ak wér ak jëkkëram jeeku yàlla booleel muy jaaju yàlla na yàlla saxal seen diggante yàlla na barkeel yàlla barkeel seen diggante yàlla na njaboot gu barkeel ñu di ko gërëm moom it sant xam ne vraiment bañ amee ci moom euh, euh, mu jëlal ñu ay daba dëgëri si amuñu ci moom lenn lenn lenn lu ñu xebet waaw di ko ñaanal jàmm moom it ak tam ak aawam bee yàlla jubale seeni i xol bi jaayi seen i mujjët sallallahu taala wa sallam jërëjëf merci